association la boo xam ne nii ay kuréel yu nekk ci biir Touba yoo xam ne nii ay kuréel yu ñu miin lañ ta xam leen ñooñu lañu dalal ngir ñu leeral ñu ci seeni jaar-jaar ak it leeral ñu ci doxinu kuréel yooye ak it lan mooy objectif kuréel yi loolu moo tax ngeen gis ci suñu euh, kanam ci suñu wet ñu dend feek sëriñ Ahmadou Mbaye sëriñ Ahmadou Bamba Mbaye moom mu ñëw fi teew bi nga xamee ne moom mooy dox ci wàllum mbindum ak di ko tasaare loolu moom mooy li nga xamee ne maanaam ñooñu la fi teewal waaye bu ñu wëlbatikoo it eh, suñu wet it danañ gis sëriñ imam al imam ñang moom it mu teewal fi daaira rawdu riyaahin di daaira boo xam ne mu xam-xam ci la ñuy yëngu bu weera a wér a wér xam leen ci eh, sunu wet gele tamit dinañ am di moom it euh, mu ñëw teewal fi daaira muxaddamatul xidma daaira muxaddamatul xidma bi nga xamee ne moom mooy daa daaira boo xam ne nii nekk di liggéey waaye tamit nag mu am teewaay boo xam ne nii teew na ko ci ngir leeral jëmmi daairatul muxaddamatul xidma moom it euh, sos ak it liggéey bi nga xamee ne liggéeyee lan mooy objectifu daaira bi incha allah kon bala ñoo guddal rek ginnaaw bi ñu siyaaree ñëpp rek ñu jox sëriñ Ahmadu waaye bu nuyoo ba noppi it mu daal mubasharatan rek ci daaira bi nga xamee ne association bi nga xamee ne mooy association boo xam ne nii ci wàllum bind euh, wala tasaari mbindum yoon wi ci lay ci lay dox euh, sëriñ Ahmadu bu lay laaj ne la euh, association boobu mooy ban association ak it maanaam kañ lañ ko sos ak it ndax maanaam am na bërëb boo xam ne nii manees na ko ku ko soxla foofu ngay dem ngir gis leen fa wala déet bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman wajaxal kalaami rachidan wa murshida wa fikkirati ndawil wa xat bi achida barke borom Tuuba kon ñu ngi jiite si néew bi sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kullu murit di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ziar mboolem mbokki taalibe yi nga xam si ñoom lañ bokkal liggéey bi mën cee lim daara muxaddamatul xidma bi nga xam si liggéey bu am solo lañ def ci jumaa ji ak ci yenn barab waaye tamit di ziar bu baax mbokki taalibe yi nga xam si ñun lañ àndal liggéey bi muy waa rawdu ñoom it nekk mbooloo mu am solo ci yoonu murit comme ni nga ko waxee Mbàkke ñuy yëngu ci wàllum xam-xam ñu nekk suñu kàddu ñu ngi jiite suñu yoo euh, président euh, président d'honneur suñu Cheikh na Ahmadou Bamba Muntaxa nga xam si moom président d'honneur association bi ñu représenté tey jii waaye di teg sëñ Babacar Xuma moom it nga xam si président association de la Mouridia di ziar mbooleem mbokk taalibe yi ak ñi nga xam si bokk na ci bureau bi ak ci ci kii bi. Euh, association de écrivains de la Mouridia comme ni nga ko waxee rek mbir mu ne loo gis day am cëslaay euh, yàlla dafa defoon nag ci atum 2021 mu yem ak 16 octobre. Euh, période boobu daanaka mois octobre moom boo ko tuddee rek sa xel di dem ci ubbiteg école yàlla def na jamono yooyu ñu nekkoon mbir ki laan fa jàngale waaye ñu ni woon màggal gi eh, gàmm gi ñëwoon ndax gàmm gi dafa nekkoon le 18 octobre ñu ni xam naa ko nañu Tuubaa gàmmoo fi bañ fi dikkee nag suñu borom def euh, ñu yàgg na ñoo am ak wóllëre ku ci may ni inspecteur Mamadou Lo muy euh, ñu tànnaan ko bàyyiloo moom nekk kenn koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci diwaanu euh, Touba ak ci xam-xam bu bind téere bu am solo tuddee ko un aspect de la poésie wal fal murid ci sëñ Baye Jaxate yàlla def jamono yi mu amoon benn complexe éducatif boo xam si muy nekkoon côté Médiana di fa jàngale moom nag dafa nekk inspecteur de l' éducation à la retraite nekk koo xam si bo ci yoonu murit université yi nga xam si Sëriñ Muntaxa woote na ko mu nekk ci département ILAMEL mooy institut des langues et métiers du livre waaye tamit nekk membre Rawdu Raxin bokk ci comité d' organisation màggal gi mu am cër bu bu yàlla bu am fii ci diwaanu Touba suñu borom nag def moo mu yëngu ci xam-xam yëngu ci bind ci lan xamante wax dëgg yàlla bañ bis boobu muy le 16 octobre 2021 gàmmu waroon nekk le 18 octobre 2021 ba ma ñëwee Touba ma dem ziyaare ko ci barabam ndax fa ma nekk ak foofu dafa xaw a jege ba ñu yeggee nag ci biir bureau bi ñuy waxtaan lu baree bari waaye ñu gisandoo ni ci xilaafa xilaaf ak sëñ Mamadou Muntaxa bokk na sax ak yeneen yoo xam si amoon na ay at ci gannaaw murid yi daal li ñuy bind bari na lool ñu def nag benn profusion d'ouvrage boo xam ñu ngi koy bind ci yoonu murid ñuy ci waxtaan ba daanaka daal bokk ci même idée ndax ku ci nekk ci maam moom rek gis gis na ni yor nga ci yor nga ci téere ay auteurs yoo xam si boo ko dajalee woon dana mat eh, ab bibliothèque ñu daal xalaatoon daal ni loolu daal buñ ko takkoon dana gën ndax moom boobu yàlla def na ne mi ngi coordonné liggéey bi nga xam si mooy ilamel muy institut des langues et métiers du livre nga xam si ci université bi benn département la ñu ngi wax sax naan mois d'octobre bi ñëw dana ubbeeku gannaaw gi nag ci lan xalaatee mënu ma daal xam naa ni ku ci waxtaan ak sëñ Amadou Mbacke Badawi moom it loolu dana ko yittee lool Eh, yàlla def wax dëgg yàlla bañ génnee ci jotaay boobu ma it ma ma woo sëñ Amadou Mbacke Badawi wax dëgg yàlla mu nekk jëmm ju baax mën naa ni moom bu am na noo xam si bu ñu ko waxee woon rek mën naa ni <laughs> station fa lay yem waaye boo ko wooyee leeral ko ko mu rafetlu ko loolu wax dëgg yàlla daal di daal ñuy encouragé daal di loolu kat bu amee dana leen yombal lu bare bëri gannaaw gi nag ci leen jugee nag daal di ni ñi njëkk a def dañuy ñu woo mbooleem ñi nga xam si ay ay kilifa leen maam ñoo xam si ay njabootu sëñ Tuubaa la ñi ku ci mel sëñ ci Amadou Bamba Muntaxa sëñ Xaadim Mbàkke Abbas euh, ñoom sëñ Soin bu Québec ñoom euh, sëñ sëñ Cheikh ma Mbàkke sëñ Cheikh Fatou Mbàkke sax man ba ma ko woowee ci la ma waxee ni ma mën naa nekk auteur maanaam au lieu que ñuy wax association des écrivains de la Bourde ndax boo nee écrivain rek mooy ay bindkat waaye boo nee auteur ki nga xam si même bindul waaye dafa def loo xam si film documentaire la ci yoonu murit wala lépp lu xam dal ñun nañ ko tuddee noonu gannaaw gi nag ci laa créé groupe WhatsApp bi tuddee ko AAM réflexion maam noonu laa ko tënk mooy waxtaan daal xool nañ ko tënkee ñu ci leen ba ma bañ dajalee mbooleem ñi nga xam si ay kilifa lan ñu ne nag lañu woo mbokk taalibe yi nga xam si bind nañ noonu lañ ko taxawalee ba mu toll ci li limu euh, fanweer ak juróom muy 35 ci leen tëj groupe bi nag ndax xam nga am na yenn idée yoo xam bu dikkee rek bu ñëpp ñëwendee rek daanaka xalaat yi mën naa bari ba liggéey bi xaw a yeex bañ ko créé ci mois de boobu mooy wax bañ le 16 octobre boobu ci leen waxtaan ci leen génn ci leen créé groupe bi ci la mbokk yi dugg ci leen tàmbalee di waxtaan wax dëgg yàlla mu nekk nag liggéey boo xam si dafa mel ni daal mboole mu écrivain mérite rek day mel ni moom nga doon xaar ndax gisoon nañu takk gi daal dafa dafa war a jaadu bañ ko créé nag yàlla def ñu waxtaan ci pendant deux mois ba ci leen génnee ay règlement intérieur génne ci statut euh, le 11 décembre 2021 euh, ñu ñëw ci résidence Cheikhoul Khadim fa leen defee assemblée générale constitutive bi Euh, sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Cheikh Amadou Bamba Muntaxa moom di leer sëñ Cheikh Muntaxa nekk jàmbaar mooy nekk jàngalkat nekk imam nekk euh, ku jàmbaar ci wàllum yoonu murid ci bind euh, moom it ñëw ndax moom dafa jàppee boppam membre loolu tamit lu jalal leeral la ndax sëñ Cheikh xëy na bu ne mooy président du ne doom sëñ Muntaxa sëñ bi moo ko jël teg ko ci kam donte loolu la waaye moom engagement personnel da ciy jiitu muy def jàppee boppam membre ànd ñun liggéey bi yàlla def ñu yendu fii ci résidence ñu waxtaan daal di fal euh, vice président ak euh, yooyu yëpp li jëm ci wàllu bureau bi ñu composé ko gannaaw gi nag bañ continuer ñuy ñuy liggéey mën naa ni ci gàttal moom loolu mooy sosu association des écuries de la Mouride teewul nag am na ci yenn activité yoo xam ak ay réalisations yoo xam def nañ ko ba jamono yi ñu toll xam naa ne dañuy gàttal foofu kàddu gi rek. delloo leen ko ba ñu jërëjëf jërëjëf sëriñ Ahmadou Bamba Mbaye ci leeral yu am solo yooyu nga xamee ne def nga ko ci association bi nga xamee ne mooy association bind ci yoonu murit nga xamee ne loolu moom mooy eh, turu association bi naaw bi nga leeralee it ci taxawal gi mu mel ne maanaam biñ ko taxawalee yàggut waaye nag day mel ne association la boo xam ne nii solo si fuñ ko takku rek weesu na ko ba tax na képp koo xam ne nii daan na bind di jaaxle ci nan lay def ba ba bind ci yoon wi wala su ma bindee ba pare nan lay def ba tasaare ko wala xeet yi demee noonu association bi dina tax loolu gën koo dimbale ci wàll googu kon day mel ne daa ñëw rek ngir mbooleem képp koy jàng rek nga nga bokk ci incha allah euh, kon dañuy jàll ci sëriñ imam euh, imam ñang su ko defee mu leeral ñu rek moom it ginnaaw bi mu siyaaree ginnaaw bi ñu ko siyaaree siyaaree sëriñ Ahmadou Badawi euh, moom bi nga xamee ne moom mooy sunu PDG ci mujamaa Cheikh al Khadim ñu nuyu ko bu baax a baax a baax waaye tamit nag nekk kenn ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo jiite daairatu Rawdu xiin buñ ko nuyoo rek ñuy yóbbaale ñëpp incha allahu rabbi kon sëñ imam bismillah kon man ngaa indi rek ci nuyoo bi boo paree yit nga leeral ñu ci daaira Rawdu Rayaahiin kan lañ ko sos ak it lan mooy doxinam incha allah. waaleykum salaam bu baax di ziyaare ñi topp jotaay bi ñëpp ñi teew ci barab bi ak ñi ñiy topp ci barab yi ñu koy tasaaree bu loolu wees li nga wax am na solo lool euh, maa ngi nuyu Sëñ Ahmad bàmba tamit ak euh, waa association xamul association des auteurs laay wax wala association des écrivains de la Mouridia ni mu ko leeralee sànq bu ko defee daayiratu rawdu rek bi nga xam ne ñoom laa fi teew nii ci seen tour la boo xam ne Euh, bu ko defee daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoom laa fi teew ci seen tur daayira la boo xam ne ñoomi it daayira bu yëngu ci xam-xam lañ comme ni ko sëñ bi waxee sunu devise mooy tasaare mbindum Cheikhul Khadim tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim koy di waxee sax naan tasaare njàngaleem islaam ci anam gi ko suñ anam muy daayira boo xam ne ñi ko sos ay boroomi xam-xam lañ yoo xam ne soriwul atum 1999 waaye nag ci atum 2002 ci lañ ko xam mu officiel tudd nii mu tudd di dox doxin wi muy dox booba it contexte déclencheur bi moo nekkoon dafa amoon ay benn benn nit rek ñoo xam ne ñu yëngu ci xam-xam lañ ñu amoon gis-gisu ne màggal gi neex na lool bernde yi bari na lool waaye am na lu luñ ci mën a dolli ngir mu gën a neex gën a baax muy berndeel nit ñi ci xam-xam ñu organiser nag benn conférence rek defal ko gan ñi ci seeni moyens bopp wut ay baas ak yu mel noonu ba ñu ko defee yàlla dogal ba ñuy màggal gi jàlle gan ñi nga xam ne ñoo fi teewoon te teewaloon yeneen këri diine bi ñuy tàggu ji sëñ saalihu radiallahu taala anhu wa ardaahu jamono yooyu mooy xalifa ñu jottali ko mbégte mooma ne ko yàgg nañoo ñëw yàgg nañoo doon say gan yàgg nga ñoo berndeel waaye bernde gu mel ne bernde gu mel ne gu ren gii mosuñu ko am ren moom suñuy jëmm berndeel nañ ko suñuy ruux tamit berndeel nañ ko sant ko ca loola sëñ saaliw it wax ja dugg ko lool mu bég ca lool daa woo ñi nga xam ne ñoo taxawee woon loola daal leen koy far sant ne leen nag sant naa leen ngeen di ma berndeelal ruux yi kon ngeen tàmbali ko tey tey it na ngeen ko wéyal ci gàmmu gi ku ne xam na ne Sëñ Saaliw noon la daan doxee bu daan woote màggal gi ci lay woote waale gàmmu gi daal di wax ne bernde ñaari xeet la màggal gi bernde da cee am solo lool te bernde it ñaari xeet la am na berndeel jëmm am na berndeel ruux daan ne ñu yéen nag dénk naa leen berndey ruux yi moom it moo sàkkal daayira bi aw tur moo ko tobbil aw sas sas wi wax naa ko mooy berndeel gani Serigne Touba yi ci seeni ruux mooy sunu sas kon sas nañu ñu yëngu ci xam-xam tur wi tamit moo ko tuddee rawdu rayaaxiin wax ne dama ko barkeeloo ci turu daara joo xam ne sëriñ Touba radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ko amaloon ca Ceyeen te ñenn ci njabootam gu mag gi ñenn ci ñoom sax mos a jiite daayira daara jooja ku mel ne sëñ Modou Moustapha wax ne sëñ fàllu it nekkoon bokkoon na ca ca ña fa nekkoon sëñ Modou Moustapha moom mos na koo jiite maa xamul ndax sëñ Fallou it mos na koo jiiteem déet booba nag ca lañ daal di def loola ñun suñu sas suñu sas ci toolu yoon wi mooy liggéey ci wàllu xam-xam tasaare ko ba fu murit nekk wala fu jàngkat nekk bu bëggee am accès ci mbindum Serigne Touba wala dégginu sëriñ Touba wala jàngaleem Serigne Touba ci anam gëm gën yaatoo mu mën ko caa am. ca lañ daal di def daayira bi nag ab daayira structuré ko ci anam goo xam ne am na ku ñuy wax almunasiqul am te nga tudd ko léegi muy Serigne Ahmed Mbacke albadawi moom Serigne Fallou. am na tamit foofu fa mu nekk ñoom tan siixi lañ koy wooye am na ñu fa bokkal nekk mooy coordination bi. am na it secrétariat général moom la ñuy wax amaana amma loolu am na am na ñu ca nekk du doon kenn nit moo tax waaye dana am ku ko jiite. am na it ay commission am na commission bu ñuy wax commission euh, culture mooy al lajna thaqafiya am na it beneen lajna bu ñuy wax al lajna al i'lamiya mooy commission communication. am na it lajna bu ñuy wax al lajna al maliya mooy na boo xam ne ñoom ñooy saytu lu jëm ci dépense yi daayira bi am na it na bu ñuy wax. na lajna tanzimiya ñoom ñooy saytu lépp lu daayira bi organisé ñoom ñoo cay jiitu liggéey bi it ni ñu koy amalee mooy dañuy fexe rek bay vulgariser dañuy fexe ba njàngaleem sëñ bi di tasaaroo conférence yooyu ma tudd sànq moo ci jiitu mënuñoo lim fi ne nii may wax ak yow ba fi mu ne nii bu ñuy bind dañuy wax ne rek mi aatu minal muhaadaraat la ñuy wax waaye xasru ko ba léegi ndax ñun ci suñ bopp xamuñ ñaata conférence lañ taxawee bañ sosoo ak léegi waaye nag conférence yi nga xam ne moom ci bisu màggal gi lañ koy taxawee moom yooyu xam nañ ko yooyu ñu ngi koy bind ndax màggal gu jot boobaak léegi conférence bañ cay amal dañ koy bind mu doon texte tàmbali nañ sax léegi bi nga xamee ne yëf yi dem na ba mel nii mu mel gën a yaatu gën a organisé wu tàmbali nañ léegi conférence bi dañ koy bind mu nekk benn document document bi kiy def conférence bi bu ñëwee bu koy defit ñii topp conférence bi te teew ca barab ba danañ leen ko mën a jox ñoom ñu am ko ngir li muy wax comme day gàtt ndax conférence bi léeg-léeg day doon loo xam ne day mat téeméeri page wala mu ëpp ko te kiy wax ñun 45 minutes rek lañ koy wax mu wax lu ca xaj ndax dañuy am commission boo xam ne ñoom ñooy saytu conférence bi commission boobu suñ bindee ba noppi ki ko war a dañ koy sant nag mu talxiis ko moom su ko talxiisee indi talxiis bi ñu natt ko ba xam ne dana xaj ci 45 minutes moom loolu lay jàllale ca bisu màggal ga li ci des nag dañuy joxe document bi ku bëgg yaatal dem ci bokk na ci sas yooyu ngir yaatal mbind bi tamit ngir yaatal njàngaleem sëñ bi mooy sasoo nañ saa su màggalug Tuuba jotee ginnaaw conférence bi ñuy def def ko ab texte jox ko mbooloo mi ba noppi ilqaa am nit ku ko wax ñëpp dégg ko danañ sasoo nañ it at mu jot danañ jël benn téere danañ génne benn téere lu mu néew néew am at mën naa ñëw ñu génne lu ëpp benn téere waaye li ñu sasoo moom mooy lu mu néew néew danañu génne benn téere boo xam ne ci sëñ bi lay lay lay aju mën naa nekk téere boo xam ne sëñ bi moo ko bindoon ci cosaan ñu jël ko def li ñuy wax ci arab taxqiq maanaam mool ko moolin boo xam ne dañu koy bind ci caractère arab yi nga xam ne léegi ñëpp mën nañ koo liir ndax umpale wu leen ne suñu fii am nañ suñu bindinu bopp mu aare rafet te waa fii mën koo jàng waaye am na ñeneen ñoo xam ne sëñ bi mën na leen a yitteel waaye mënuñoo jàng mbindin woowu ñooñu nag dañ leen koy bindal ci mbindin yi ñu mën a jàng ñoom loolu mooy jéegu bu njëkk bi ba ca topp it mooy danañ ko topp xool ba xam am na ay sotti yuñ jot yu ëpp benn ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne la téere sàngam am nañ ci mbindum ku baax ki ci boppam am nañ ci mbindum sëñ Masamba am nañ ci mbindum sëñ am nañ ci mbindum sëñ diw nga xam ne ñu bari bind nañ ko léeg-léeg nga am ci yeneen mbind yoo xam ne da nga koy jot nii rek waaye doo xam ci kan la bàyyi ko su boobaa danañ jéem a boole yooyu yëpp xool bu fekkee am na ci yoo xam ne dañ koy jotaale ak yoo xam ne am na ay baat yoo xam ne mënees na koo mënees na koo liir te du leer ci ki koy liir ñu jam ko wutal ko ay xawaamis wax baat bii lii lay firi lii lay firi ci arab su fekkee dafa nekk loo xam ne ab jàngkat bu ndaw mën na koo liir te du ko xam ñu wax ko ko léegi-léegi it xam ngeen ne sëñ bi ni muy bindee léegi-léegi mu bind ba mu yàgg mu jam ab mu joxoñ ab xadis junj ko daal di bàyyi su boobaa danañ boole ci suñu liggéey ñun wëri xaddis boobu ba gis ko indi ko bind ko ci suuf wax ne xaddis bii la sëñ bi jubloo junj su junjee ab aay it ñu def noonu su junjee waxi benn boroom xam-xam bu yàgg it ñu def noonu su junjee lu mel noonu ñu def noonu loolu la ñuy wooyee taxqiq at mu jot danañ ko def loolu nag ci sunu euh, ci sunu waar mooy bay ci waaru xam-xam niki noonu lépp lu jëm ci xam-xam te concerné yoon wi ku ñu ca woo danañ ca wuyu saa suñ ñu wooyee yoon wi ci loo xam ne jotaay la yoo xam ne yu jëm ci xam-xam la moo xam lu ñuy bind la wala lu ñuy wax ñun danañ jekk ngir teewal ci yoon wi danañ njekk it ngir jottali fa euh, leetar wala euh, daawab sëriñ bi jottali ko ñi nga xam ne war nañ koo jot te xëy na jote siwuñ fii wala yu mel noonu ci anam yëpp nag maa ngi ragal a guddal waaye ci gàttal daal mooy ñun suñu waar bi ñu tobbil ci biir suñu sas wi ñu tobbil ci biir yoon wi mooy tasaare xam-xam ba ñëpp mën cee jot. tubarkalla jërëjëf sëriñ imam ci leeral yu am solo yooye nga xamee ne def nga ko mu jëm ci daairat Rawdu Rayaahiin day mel ne ci tënk daaira la boo xam ne nii ci wàllu xam-xam rekk lay yëngu xam-xam boo xam ne nii eh, nekkul ci xam-xam wax rekk yam waaye dañ koo boole ak i bind nga xam ne dañuy bind ba noppi lépp lu ñuy waxit dañ ci am cëslaay bu wér a wér buñ mën a teg baaraam ci ne mi ngi nii day mel ne kon daaira la boo xam ne nii moom it ab liggéeyam liggéey bu rëy la ba tax li tax daaira muxaddamatul xidma tànn ko ngir mu bokk ci jotaay bi loola ñoom xam nañ ko ndax day mel ne daaira la boo xam ne nii ñoom ñaar danoo bokk ay jëfin ci wàllu doxin ci wàllu googu ba tax na sax daa daaira muxaddamatul xidma li bari ci yi nga xamee ne da koy sàkku ñi di ko ko defal ci biir jumaa ji day mel ne daa daairatu Rawdu Rayaahiin ñoom ñoo ko cay faral di taxawee taxawaay yooyu comme nii nga ko waxee nii kon ngir ñu bañ a guddal dañuy jox sëriñ Amdi Moustapha Mbakke ngir mu leeral ñu ci daa daaira Muxaddamatul Xidma ginnaaw ab nuyoom ak it maanaam indil ñu ci e, Muxaddamatul Xidma sos gi ak it lan mooy lan mooy rôle am ci ci ci ci ci yoone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 ak ni nga xamante ne noonu lay doxee ndax damaa jàpp ne bokk na ci li ñuy waxtaane tey mooy kuréel yu amee solo nii ak taxawaay boo am solo bi ñu taxawaay ci biir yoon wi ak yaatal ko ak leeral njàngaleem Sëñ Tuubaa jàpp naa ne jotaay ëpp ko solo ci jotaay yi nga xamante ne ñu ngi koy def ngir leeral ñi nga xamante ne ñoo ne ci bitti kon maa ngi ndokkeel euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci bis bu màgg bi nga xamante ne moom la ñuy euh, tàmbali na sax waaye suba lay lay gën a jëmm di ko ci ndokkeel di ci ndokkeel mboolem jullit ñi fu ñu mën a nekk di ndokkeel jullit ñi yëpp ak fu ñu mën a nekk di leen ndokkeel yéen itam eh, waaye itam di ñaan suñu mu gën leen a dëgëral eh, di ci jublu Rawdu Rayaahiin waa association des écrivains de la Mouridia wala des comme ni ko sama sama sëñ maam sëñ Bamba waxee eh, waaye nañ wax li ñu bind rek association des écrivains de la Mouridia ak ak ñooy liggéey liggéey yu ni mel yëpp te te yëpp nekk yu am solo kon ñoo ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci liggéey bu rëy bi ñu def di ñaan yàlla suñu borom mu dëgëral leen ba fi ngeen ko bëggee eggale yëpp mu tawfeexal leen ba ngeen mën ko faa eggale sëñ sëñ sëñ Seexul Xadim euh, li tax kàddu yu ni mel mooy bokk yi nga xamante ne ñoom lañ seqal jataay bi te ñu wuutu fi mbokk ya ñu bàyyi ñoom ca liggéey ya nga xamante ne ñoom lañ seq ak ñoom ba tax ñu ñëw toog fii liggéey bi ñu séq ak ñoom dañ koo ànd ak ñoom ci ak rafetal rafetal goo xamante ne yàlla na suñ jëlee kàddu ñu sant leen ci turu ñi nga xamante ne mooy turu daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne xëy na ci ay mbira ci ay ci ci ak ci ak suufam wala ci ak coordination am xëy na ci la ci la ci la lii sosoo te ñoom ñu ànd kook ñoom àndin wu rafet am na loo ciy junj loo xam ne bu génnee liggéey bi itam yeneen liggéey yi ñu ànd yëpp yi ñu def yëpp dañ koy ànd ak mel ne waa Rawdu collaborer ak ñoom ci liggéey yu bare bëri kon rafet na ñu ñu ñu ñu ñu fësal loolu wane ko ba ñëpp xam ne liggéey bi nii lay demee léeg-léeg nga gis yenn jëmm yi ñuy def yenn liggéey yi waaye loolu li muy firndeel rek mooy li ñuy wax dëgg la mooy jëm jubloo liggéey Sëñ Tuubaa rek moo leen ñor loolu itam yaakaar naa lu am am solo la ci ab soññe la bu rëy ci yeneen euh, kuréeli murit yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ay murit fu ñu mën a nekk lépp lu ñuy def te mu nekk liggéey boo xamante ne bu war a ànd la dañoo war a góorgóorlu ba war a ànd def ko ngir mooy gën mooy mooy tax mu gën a jàppandi laaj nga laaj bu am solo suñ Seexul Xadiim mooy eh, ma ma jaar fi mbokk yi jaar rek wax daayira bi na fan la sosoo ak nan la organisé woo yaakaar naa ci bion jaala eh, daayira mu xadamatul xidma mu ngi sosu ci mars 1994 loolu kenn ku ne xam na ne booba Serigne Saalix moom sëñ Tuubaa mu baax mii moo fi nekkaloon sëñ Tuubaa ci kaw suuf jiite murit yépp ci ndigalam yitam la sosoo la waral sosu ga mooy sabab bi mooy ku ñu wax sëñ Njaaña Buso di doomi sëñ bu Buso moo nekkoon ci barab bi yoroon ko wuutu fi ñam fa wuutu mooy barabu sëñ Tuubaa bi ñu gis ne ay bokk yu yu baaxoo di jullee ci jumaa ji ak di ko di ko dundal ni nga xamante noonu la ko borom barab bi ñaanee ba waxee ca xasida ga ne wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa dëban yaa xakim faw rek mu am ñoo xamante ne ñaan googu faw ñoo koy jëmmal mooy di saxal ay wax di di di saxal di jullee julli juróom yi ci barab bu tedd bii nga xamante ne mooy jumaay Sëñ Tuubaa ji ñu gis ne nag barab bi xaw naa ñàkk a toppatoo tuuti ndax bañ ko so bañ ko bañ ko ubbee le 7 juin 1963 Sëñ Fallu daa am organisation bu mu fi tegoon maanaam aw doxaliin ndax wutoon nañu ko doon saytu mooy ña nga xamante ne ñoom lañ joxe woon ñuy ay dongay tarbiya yoo xam ne dañ leen a woon ngir liggéeyu jumaa ji bi ñu rattaxalee jumaa ji ba nopp mooy bi ñu ko karoo ba ba ba noppi ñoom ñu bëri ca ñoom suñ fal dana dootuma leen liggéeyloo ma ñooñ dama leen yewi ndax liggéeyu suñ tubaab yi doo nga taxoon ma leen di sonal waaye da ca am ca biir ñoo xam nag dane leen ñii nag damaa bëgg ñu des ci biir taax mi ñoom di ko saytu ndax taax mu toll nii ku ko def ku ko defar war faa bàyyi ñoo xam dañ koy saytu ba lañ fa def ñu mën koo sàmm mu bàyyi fii ñoo xamante ne ñenn ñi da leen a bàyyi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bale nga xamante ne ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy xayal am ci ñoo xamante ne ñoom lañ tànn ñu nekk noddkat yi sax far mel ne suñu Yuusu Jaañ mii di fi nodd ba tey jii ca ñooñu la bokk suñu Modou Xabaar moo ko joxe woon addiya mu bokk ci ñi nga donga yi nga xamante ne ñoo doon liggéey am am ñeneen ñoo xamante ne ñoom seen seen liggéey daa jëmoon ci defaraat maanaam lu karo bu daya bu dañ ñu dindi koo defaraat nangam nangam yooyu ndax jàngoon nañ ak maçonnerie ci biir liggéey bu jumaa ji ñooñu nag jamono mooy dox 63 ba 94 boo xoolee bu nekkoon ay waxambaane yu dëgër dañu tàmbalee jëm mag nag ñenn ñi faatu kon taxawaay boobu daal laajaat ñu ñu ñu renouveler ko ñu yeesalaat ko loolu nag xalaat boobu mooy mooy nag jumaa ji daa mel ne ñàkk na ay taxawu ndax ñi sàkkoon ñu koy taxawu faaw ñu wuutal leen ñeneen ngir faatu ak mën kon am war naa am ñoo xamante ne nag dañ ñëw ngir wurtu leen ci liggéey booba bañ waxtaanee dem ci sëñ Njaañ wax ko ne ko dañoo bëggoon daal xayal gi nga xamante ne mag ñi néew nañ ci doole lool ndax ñenn ñi faatu nañ ñenn ñi galfan nañ dañoo bëggoon di ko def ñu dem sëñ Saliou nag leeral ko ko moo daal di cay joxe ndigal ci weer woowu ma wax mars 1994 kon loolu mooy sababu sosu gi bi ko sëñ Saliou diglee nag ñoom ca ajjuma ja ca topp rek dañoo gis ne ajjuma la jumaa ji di recevoir ay nit lu ci gën a bëri ajuma ja ci topp ñoom lañ def mooy dem jëndi ay bale lañoo ñoo dojo jot a dajale lañ am ci koppar dem ca marché Ocass jënd ay bale sëgg yoo xamante ne moom la ñu bale ñëw bale fi ñu mën a bale yëpp ba set ngir xayal ko ngir ñii ñëw di julli si bu ñëwee barab bi méngoog barab boo xamante ne dana eh, dana yelloog li nga xam ne ak jaamu yàlla ci teewi bakkan eh, xayal ko eh, di noonu lañ doon continuer nag ngir bañ a guddal ci évolution bi bañ demee ba mu tàmbalee nag di jël benn envergure bi maanaam di yaatu ñu gis ne war nañ koo nag organiser mooy war nañoo warut a nekk rek ay nit ñu dajaloo su su waxtu julli jotee ñu fexe ba defal ay sàppe su bale jotee ñu ñëw bale su mélange jotee ñu mélange waaye war nañoo fexe nag ba jaarale ko ci aw yoon ci lañ toog nag xalaat tëgg ab bureau daal di def li nga xamante ne moom la ñu woowee euh, benn réunion général boo xamante ne ci lañ euh, daal di formaliser yëf yi nag daal di koy wutal li ñu woowee présidence wala président sax la am ndax ndax présidence mooy ay ñu bëri ñoo xam ne dañ fay liggéey waaye am na ab président moo ngi tudd Serigne Afia Bousso al imam mooy ki nga xamante ne moom ci xalaat yooyu ña ko njëkkoon sos xalaat yooyu ña ca àndoon ba dem ci Serigne Saliou ba mu joxe ndigal ca la bokkoon ñu jiital ko ci mu jiite daayira bi ndax Serigne Saliou joxoñoon na leen ko ne Afia moom mën na kaa jiite ñu daal di ca ànd ak moom moom itam mu cay def lu mën ak lu mënut ndax lu lu mu mas a man rek lu daayira mënut dara moo daan jël ci poosam di ñu di ñu toggal gars yi ñuy lekk bu ñoppee dem këram nangam nangam et cetera loolu ci ak manam kese la ko doon defee euh, booba euh, xëy na lu bëree bëri ñëwagut euh, am na tamit lu ñu woowee al amaanatul amma mooy mooy secrétariat général secrétariat général boobu ci biir dafa am lu ñuy woowee secrétariat exécutif ak administratif secrétariat administratif mooy jëm ci lépp loo xamante ne lu document la loo xamante ay archive la loo xamante lu lépp loo xamante ne lu jëm ci wàllu euh, document euh, document la ci wàllu lijjanti ci wàllu ay compte bancaire ci wàllu ay carte de membre nan la ñuy bindee nit ñi nan la ñuy defaree ay document lan la lépp loo xam ne lu administratif la secrétariat boobu moo koy liggéey boobu it am nañ seen bureau spécial boo xamante ne ñoom loolu rek mooy seen mooy seen mooy seen liggéey saytu membre yi bokk ci daayira bi ak membre bu nekk ñaata xeeti nag daayira bi am na ñaari xeeti membre am na membre boo xamante ne dañ koy wooyee membre normal mooy membre boo xamante ne euh, day liggéey si adwa amil lañ koy woowee koo koo xamante ne moom daa jaayante ñëw bindu ci daayira bi waaye day ñëw di liggéey si danaa wax léegi ci activités yi ñuy def bay soxlaa ay membre yuy ñëw di liggéey si am na membre boo xam ne itam moom contributeur lañ koy woo lañ koy wooyee moom moom régime contre contre musaahama la nekk mooy day moom day nekk ci bitti amul jotam mayu ko muy tàbbisi di ñëw ci liggéey bi di fekkee activités yi waaye dana man di loxoom di ñëw muy joxe addiyaam muy tàbbi ci li ñu liggéey ñaari membre yooyu yëpp ñoo ñoo leen ni ñoo leen di saytu bu dee secrétariat euh, exécutif bi nag ñoom ñooy wëyal kalaat yi nga xamante ne day bàyyi ko ci yeneen entité yi nga xamante ne am na ci am na ci daayira bi entité yooyu bokk na ci li ñu woowee commission organisation commission organisation ñoom ñoo yor lépp loo xamante ne matériel lu daayira la lépp loo xam ne membre daayira bi la bu ko waa secrétariat bindee ba noppi dañ leen yabal jox leen aw carte yabal leen ci waa organisation ñoom ñu jël ko xool kii lan la war a mënal waa organisation bu daayira bi di organiser lan la leen war a mënal dañ koy yóbbu ñoom ci seen sous commission yi dañu xam ba xam kii defar sàppe la man kii jubbante la man kii wàcc ci bi la man ndax kii sécurité la man ndax kii laal tàppi la war a man et cetera ñoom loolu la ñuy def ci seen ay sous commission ci niñ ko organiser ngir bañ ngir bañ a gën a guddal am na beneen commission boo xamante ne moom la ñu tuddee euh, commission communication ñii ngeen gis ñu yor micro yeeg euh, wàllu caméra yeeg yooyu ñooñu ab commission la ba muy tàmbali lu ndaw la woon daanaka ay magnétophone la ñu yoroon yoo xam ne dañ ci daan enregistré rek xutba yeeg bayaan yi nga xamante ne moom lañ doon def di ko archivé ak di ko ay cassette yoo xamante ne ba léegi ni ci daanaka la nekk noonu lañ doon def ak di def weer wu jot ñuy def ay ay ay ab benn émission boo xamante ne dañ ko daan ànd ak dëkk lëkkaloog Lamp Fall FM boobu mi ngi door a génn ñu koy wax al manbaul muridi daan ko def ñooñu waa communication dañ ci daan jàppalanteeg waa beneen commission bi yoo xam ne danaa leen tudd ci kanam muy waa waa culture communication ñoom it am nañ ab site boo xamante ne lépp lu ñu def ci biir jumaa ji fi doon seen évolution egg na ci dañuy julli jumaa yëpp léegi ñu ngi koy direct ni ko Makka ak Madina di defee nga xam ne julli juróom yëpp dañ koy direct julli ajjuma yi waxaale wu ko événement yi xew ci jumaa ji ak yi xew ci Touba te jumaa ji di centre bi nga xam ne lu xew Touba rek wax ko jumaa ji yooyu dañ koy couvrir di ko jàllalee di ko di ko di ko di ko def di ak di def yeneen activités yoo xamante ne ci wàllu communication ak vulgarisation ndax daayira bi am na rôle vulgarisation ci njàngaleem Sëñ Tuubaa mi nga xamante ne jumaa ji balluluwaay la ci am na beneen commission boo xamante ne dañ koy woowee lajnatu saqaafiya mooy commission culturelle ba ci jotaay bii ñu nekk nii mooy exposition bi ñooñu ñoo ko piloté ñoo ko piloté commission boobu itam am na ay sous commission ay sous commission yoo xamante ne ñii dañ leen a dénk wàllu xalaat ak gëstu ci ci wàllu ci wàllu murit gi waaye ci diine nan la jàkk war a mel et cetera ak nan la ñuy fexee ba jumaa ji lan mooy cosaanam ak lépp loo xamante ne laal na ko ci wàllu histoire am ñu fexe ba am ko ba képp koo xamante ne jugee na ci barab ñëw di gëstu ci édifice édifice bu mel nii li normal mooy ay nit bu ñu jógee fenn ba egsi ci dëkk bu mel ne Touba ñëw ci édifice bu mel nii gëstu histoire am bu ñëwee nag dañoo war a fekk loola ñu gëstu ko ba mu yaxal ko ba mu nekk lu wér loo xamante ne information yañ leen di jox day nekk yuñ gëstu yuñ wéral yu tegu ci xam-xam loolu moo tax commission boobu am moo jur li xalaatu bi itam war nañoo fexe ba màggal gi ñiy ñëw di jumaa ji bu ñëwee du ñem rek ci siyaare raay wala ñu ñaan dem waaye dañoo war a ñëw ngir xam si dëgg-dëgg fii ñu ñëw fan la ak yan effort lañ def ba mu sotti moo jur xalaatum ñu amal ay expression ak yu ni ak yu ni mel commission boobu itam ni ngeen koo waxee léegi dañ ci jokkaloog waa rawdu rayahin eh, koor gi gis nga ne dañuy def loolu ab évolution la ci biir liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu def ay ay ay ramadan yoo xamante ne dañuy def ay iftar waaye di ko booleeg ay conférence yoo xamante ne dañ koy animé di jël ay borom xam-xam di ci di ci waxtaane loolu commission culturelle moo koy def am na su commission boo xamante ne loolu mooy boo xamante ne moom wàllu conférence ak wàllu ay gëstu ci ay thèmes yeeg yooyu ci lay ci lay ci lay aju temps bi mi ngi dem am na beneen commission boo xam ne moom la ñu woowee commission relation wala commission sociale commission sociale dafa am ñaari entité moom itam dafa am relation extérieure am relation intérieure commission sociale boobu moom itam am na liggéey bu am am solo boo xam ne moom itam mi ngi koy def xam ne xëy na bu mu ñëwaatee ci kàddu gi xëy na mën naa am ñu leeral yenn ci liggéey yi nga xamante ne dañ koy conféré wala ñu koy dénk yenn ci commission yi nga xamante ne tudd naa leen waaye yii daal mooy commission phare yi nga xamante ne daayira bi am na ko nga xamante ne mooy li ko li ko li ko composé mooy commission mooy présidence wala présidence ñaafiya amaanatul amma mooy secrétariat général am na ñetti secrétaire secrétariat exécutif bi ñetti nit ñoo ko seq nga xamante sëñ Abdoul Ahad Moutalib sëñ Abdoul Ahad Mokhtar sëñ Abdoulaye Diop ñoom lépp loo xamante ne lu wàll lu ñuy lu ñuy signé mu war a jàll wala yu mel noonu ñoom ñoo koy def am na commission administrative boo xamante ne ñoom lu jëm ci wàllu lijjanti xaalis ak lu jëm ci wàllu bind ay membre ak et cetera ñooñu ñoo koy def sëñ Abdoul Ahad bu soo afiye ñoom ñoo fa nekk ak ñi nga xamante ne ñoom la ko seqal am na commission organisation sëñ Fallou Mbacke moo ko jiite sëñ Mokhtar kan ak ñi nga xamante ne ñoo leen ci jàppale commission communication ni ma ko junjee léegi sëñ Abdou Khadir euh, sëñ Abdou Khadir Bousso ak sëñ Mokhtar Kane ñoom ñoo ci nekk ak ñi nga xamante ne ñoom la ko ñoom la ko àndal am na beneen commission boo xamante ne moom la ñu commission culturelle mooy la ñu saxaafee bi sëñ bu Khadir Bousso Thierno moo ko jiite ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom la ko àndal ci liggéey bi euh, commission Euh, euh, euh, social boobu ma wax itam sëñ Abdou bu Bousso Mama Sam moo ko jiite ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom la ko àndal ci ay entité lii daal mën naa koo tënkandi eh, ci liggéey bi nga xamante ne liggéey bi daa daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi koy def di 1994 ba léegi nag ah, ba léegi ñi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi fii rek ci ron Sëñ Tuubaa di di di jéem di jéemantu jërëjëf sëriñ am di ci leeral yu am solo yooyu day mel ne daayira Moukhaddamatoul Khidma day mel ne leer na ci boppi ñu bari léegi mu mel ne nekkul daaira boo xam ne nii dañuy sol yëre rek seen yére yu verte yooyu rek di jubbante sàppi day mel ne nekkul ne loolu rek moom mooy seen dawro day mel ne am na yeneen rôle yu am solo yoo xam ne nii ñu ngi koy joué ci biir jumaa ji waaye ndekete newul daaira boo xam ne nii dafa concentré woo ci jumaa ji rek yam ci mais dafa dafa yaatu lool jëm ci defar nit ki ngir ne nit ki bu njëkk ci jumaa lañ daan defaree yu bare bare bari ba tax ñoom loolu ñu xamee ko noonu ba tax ñu ci dox kon sëñ Ahmadou damay dellu siwaat ci yow rek euh, laaj la ci association bi ba xam euh, déjà am na lu mu jot a defagun ak it euh, lan la loo xam ne ni mën nañ ko mën nañ ñu ko présenté voilà ak lan mooy ay objectif am bu ko defee ñu gën a gàttal rek incha allah ngir waxtu bi jërëjëf Mbacke ñu ngi sant bu baax digg yàlla di gën a amaat mbégte jàngat nañ ci lu bëree bëri ci kàddu sëñ maam waaye kàddu sama sëriñ bi nga xam si maa koy tooñ sànq naa ko maag daara ji ñoo maase mu xadmatu xidma bu ay weer sax <laughs> kon loolu mbégte lañ ci am li mu wax daanaka boo ko dee takk rek daataa ci laaj bi mooy li li li Cheikh Samba Diarra wax Mbaye waxoon rek ni xam-xam luñ koy doyee mooy boo jaaxlee nga yër la nga xam te boo ko xam te te laaj xam-xamkat bi fi laa biree gànnaar ndax boo xoolee li mu waxee juddu association bi am na li mu fi wax ci wàllum lu ñu tuddee production scientifique mooy li sëñ Tuubaa junj rek ñu wëri ko ba gis ko maanaam am nañ xam-xam bi waaye faw ñu wëri ko moom la naan euh, te wuti xam-xamkat te laaja xam-kat bu fii laa bi rek gànnaar euh, li ñu li nga wax nag ci association des écrivains de la Mouridiya mooy boo xoolee euh, xëy na sànq si biir kàddu sax jot naa koo tëpp muy li nga xam si moom la composé commission yi président d'honneur la ñu am monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Mountakha ñu am euh, président muy sëñ Babacar Xuma ñu am vice président muy sëñ Alla Dieng am nañ pré commission économique et financière nga xam si sëñ Dongo Dimbe moom moo ko jiite moom moo nekk président comité d' organisation foire bi. bokk na ci commission communication yi nga xam si sëñ Amadou Moustapha Dieng moo ko jiite. am nañ commission sociale boo xam si sëñ Moustapha Diop moom moo ko jiite. am nañ beneen commission boo xam si relation extérieure la boo xam si euh, fii ci biir réew mi ak ci bitim réew boo xam si ñu nekk nañ ci am na ci yeneen. bànqaas yoo xam si xëy na waxtu duñ ko may waaye ñoo ñëpp ay ay ay ñoo xam si dañuy dañuy yëngu ci wàllum association bi euh, li jëm nag ci wàllum euh, activité yoo xam jot nañ koo def ndax yàlla dafa def rek association ba mu juddoo dañoo dawal ay weer rek màggal màggal màggal jegesi ñu ni kon waras nañoo mën a fexe ba def benn jotaay wala benn foire duñ ko mën a tuddee ba gaaral mboolem ay téere yoo xam si bind nañ ko ci yoonu murit bañ amee xalaat bi dem ci sëñ Ahmad sëñ Bass Mbacke Abdou Khadre màggal gi passé mu rafetlu ko loolu wax dëgg yàlla boole ñeek mu xaddamatul xidma ak rawdu muy première édition bi ñu defoon foire daaw bi waaye nag ñun dañ koy def ñaari étape mooy dañuy tàmbalee Masalik def dakaar ci weer safar gi ñëw jeexalee ko Touba daaw noonu lañ defoon ñu njëkk a def ànd ko euh, sëñ bi joxoon ñu ndigal ak mbàkk yu fay ñu defee ko ci biir esplanade bi comme ni ñu defee ci Dakar ànd kook mboolem ñuy yëngu nag ci wàllum livre ndax comme association la ci bànqaati eh, réew mi ni muy doxee lu ci nekk rek dañ ko wutal pàcc ñu ànd si mi eh, yi nga xam si mooy direction du livre de la lecture ak mboolem luy autorité ak ay maison d'édition ñi muul ay téere ñu ñëw fa gaaral ànd ak ñoom liggéey bi wax dëgg yàlla amoon àndoon nag mu amoon aussi ay panel ay waxtaan eh, gannaaw ko ba ca jàllee daaw ci lañ ñëw Touba ci màggal gi ànd kook waa Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rahin comme ni ñu ko defee ren rek exposition ak li nga xam si moom mooy ay panel loolu moo nekkoon première activité am ba ñu def nag li nga xam si moom tuddee don de livre ndax li taxoon a jug liggéey bi bokkoon na li ci njëkk taxawu sëñ Muntaxa ci li ci université bi waaye taxawu mboolem li bibliothèque ci yoonu murit waaye fexe ba képp koo xam si day gis ci yoonu murit mën a am accès ci ouvrage ci ay tradition ak yu demee noonu ñun nag leen leen def ay don de livre mooy euh, téere euh, euh, bibliothèque bi nga xam si waa kër sëñ Souhaïbou bu Mbàkke doon nañ ko ubbi ci koor gi def nañ fa yóbbu fa ay lim téere takku bañ fa jugee ñu ñëw ànd koog mu xaddamatul xidma ci koor gi nga xam ne waxtaan yi ñuy def yaakaar naa su ma jumul 9 avril la tombé ñoom ñu dalaloon ñu ñu ñëw fa ñu wax dëgg yàlla saafonte waaye indi leen tamit ay livres yoo xam si dañ ko barkeeloo mooy doon livre yooyu ñuy wax mu jëm ci wàllum euh, seen bibliothèque bi noonu lañ ko defee ak waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos nga xam ñoom dañ ko sàkk woon ci ñun jamono yi nga xam si dénkoon na leen liggéey boobu ñu ñëw jëflanteeg ñoom jox leen ay ay téere te loolu lañ fas yéene daanaka 2023 moom day xaw a waaye li fi association bi réalisé ci ay activités nekk nañu takk loolu loolu boo looloo tax sa sëñ bi dugal ñu boo boole ñoog ñi nga xam boo xool li ñu ci liggéey sëñ Tuubaa kii daanaka mi ngi naan liñ def ci conférence bu ñu koo takk kii moom mars mars 1994 la tàmbalee ba léegi waaye ñun bu ñu amee tawfeex nga judd 2021 suñu borom def sëñ Tuubaa nangu la ba mbooloo yi mel nii loolu sant la di ñaar rek comme lu ñu waxee mu nekk liggéey yoo xam si day sax ñu koy gën di def di ci ànd ak mbokk taalibe yëpp. mooy objectif bi. objectif bi nag dara tax goo jóg moo wax naa ni la. Ah. liñ si liñ bëgg. Ah. mooy suñu yéene tey mooy mboolem liñ bind ci bañ ñi si sax ba wër université yi nga xam si nekk na ci àdduna bi. Ah. tubaab bu bind ab thèse ci sëñ Tuubaa wala ab livre lu mën a doon. ñu takk ko indi ko ki fi nekk sëñ Tuubaa nu ko lii lépp ñu juur Mbàkke ay nit ñoo ko bind ci sëñ Tuubaa loolu mbokk nañ suñu objectif bu njëkk ndax ci téere la ñuy yëngu. waaye bëgg nañ xiirtal nit ñi ñuy gën ñuy bind ci sëñ bi ndax boo xoolee jamono yi li ñuy bind ay thèse wala ay mémoire ci yoonu murid bari na lool waaye bëgg nañ ñun suñu biir mbooleem loo xam si dañ ko mën a jëflante suñu biir muy wàllum xanal ak traduire vulgariser ndax boo dee xool ci table ji da fay gis euh, président de na Cheikh Cheikh Amadou mun Muntaxa téere bi mu bind ci tuddee ko xaawir rabbaaniya Cheikh Amadou Bamba nga xam ci arabe la ko bind téere bi fi mu ne nii mi ngi ci français espagnol italien chinois booyee yëpp da nga ko fay fekk allemand portugais yëpp ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci kii bi suñu yeneen mbokki taalibe yoo xam ne ay bindkat la noonu lañ koy defee am na ñoo xam si sax yamutuñ ci mbind mi rek mais téere yi dañ koy tekki di ko jaarale ci wàllu vidéo ñu koy def ay film montage yooyu yëpp wax dëgg yàlla mu nekk ku ci nekk ak na ngay bindee ñii ay poète lan ñii ci wàllum dundub sëñ bi mooy sira ak jaar-jaaram ñii di bind ci wàllum production scientifique ñii wàllum ci économie ñii di bind social mu nekk ay association boo xam si mbooleem boo dee xool ñi bind ci woon murit ñi ci bare bare tàbbi nañ ci ay docteur Cheikh Gueye Enda mi ngi ci Abdallah Fahmi Seydina Omar Ba ñoom professeur Mouhamad Gallaay Ndiaye ñoom sëñ Alla Dieng ji inspecteur Mamadou Lo daanaka ñoom ñëpp rek ci bare ak ñin lim ak ñin limul ñëpp ñu ngi ci association bi mu nekk liggéey boo xam si objectif daal lool la liggéeyal sëñ Touba nag moo ci jiitu ndax ni ko mu xaddima xaddima di defee ci jumaa ji ñii di ko defee ci wàllu conférence yooyu noonu lañu koy defee ci wàllu mbind bi loolu mooy aaye bi jërëjëf barkal la sëriñ Ahmadou ci leeral yu am solo yooyu xam naa ni kon waaye moom lenn rek laa leen di wax eh, am na téere boo xam ne ni nubzatul mubaraka la tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Diop na da koo bind te téere bi nag des loolu moom seen dawru la ngir ngeen fexe ba fu téere bi mën na ne mu génn ndax téere bi daa am solo lool te neex eh, eh, arab la arab la arab la xam naa dama ci kii rek muy téere liggéey bi muy wax dañoo am benn membre bu ñuy wax Abdallah Fahmi xam naa ñu bàyyi ñu bari dañ ko bàyyi xel Abdallah traduire na Masalik gannaaw bi sëñ mbay bi traduire na euh, Irwaawul Nadim récemment ñu ngi ko génne les éditions Durus traduire na aussi mu ne lu baax xadim xam naa léegi mu génn te xam naa ni da yooyu yëpp ñuy wax danañ ci dox ba mën koo traduire waaye du ñem foofu bëgg nañ mbooleem li nga xam si ndax dañuy soxlante tey xidma day bind ab téere bu rëy ci yoonu murit waaye day nekk arab boo xam si tey daanaka man mën naa cee bañ a jariñu keneen a keneen tey mën nañoo collaborer ba téere boobu tey ñu traduire ko nga xam si day nekk français nekk arab te bu xasee ba ne france rek day yomb mu nekk yeneen làkk yi waaye bu nekkee arab man bu ma ñëwee bu mën a lire titre ba bu ma ubbee muy fo yi sew daanaka ñoom sa Abdou Khadre rek ñoo ak ñoom ñoom arabisant yi ñoo ci mën a jëfandikoo waaye ki nga xam si moom xam-xam da koo ñor mu ñëw bëgg xam lii la muy wax bu yemee ca wala muy ijjantu moom bu yàggee da koy teg rek xooli xooli mën la bu si faaye wala meneenul baax xadi <laughs> tabarkalla day mel ne kon euh, association bi association la boo xam ne nii moom xam naa ne képp kuy yëngu ci xam-xam ak façon booy mën a sàkkoo xam-xam war ngaa mën a bokk ci association bi te it man cee adhéré ba mën cee liggéeyal Cheikhul Khadim ngir ne moom sëriñ bi moom maanaam ci lu mel nii rek ci lay woo mbokki murid yëpp rek bam naan wa mawdi al fikrati wa tafahum lii rek la kon euh, euh, ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu kon sëñ imam euh, xam naa ne daairatu Rawdu Rayaahiin xam naa ne li mu li mu réalisé bari na lool waaye rek boo ñu mënee tënkal ci at mii at mii ñu nekk at mii ñu ne ndax daaira la boo xam ne nii maanaam léegi nekkatu nakira léegi ci at mii mu ne at mii ñu ne daaira bi ban téere la génnee ak ndax am na yeneen i téere yu mu bëgg a génneewaat voilà. Euh, waaw kay sëñ euh, euh, sëñ Cheikhul waaw waxoon naa ko ci tàmbali bi waxoon naa ne dañoo sas jot ñu génne benn téere loolu it ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wormaal at mu jot ñu génne benn téere ci bu yàggul dara gis ngeen ñu doon ard benn téere boo xam ne ñu ngi ko tuddee Cheikh Ahmad bàmba Abdullahi wa xadim wa xadim wa xadim téere boobu dafa dugg ci benn silsila benn cadre boo xam ne dafa am dañoo am téere ak téere <laughs> dañoo am téere ak téere téere bi nga xam ne dañ koy jàngat at mu jot di ko jëlee ci benn ci mbindum sëñ bi comme li ma doon leeral ca ginnaaw bokkut ak nag beneen programme boo xam ne mën naa bañ a génn at mu jot waaye dañ koy topp noonu di ko génne ñu ngi ko tuddee dirasaat xawlal mouridiyya étude sur le mouridisme maanaam euh, ay bind wala ay conférence yi wax yoo xam ne ay membre daayira bi ñoo ko def dañoo am benn programme ci biir daayira bi dénk ko ay nit ñuy topp yooyu di xool yi ci ëpp solo doon ay jànget yoo xam ne approfondir nañ ko ñu di ko génne ci formu téere saa suñ demee ba am ci lu matub téere rek dañ koy sas am mbooloo ñu topp ko buñ noppee bindaat ko ci bindiinu téere suñ noppee génne ko programme boobu ñu ngi ci troisième édition am nañ aradul awal am nañ aradu saani am nañ aradu thalis aradu thalis bi nag mooy a Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xadim Rasulihi boobu dañ cee jéem a tënk dunduk sëriñ bi dañ cee jéem a tënk dunduk sëriñ bi en tout cas li ñu xam ñun ci liñ mën a wax ci kaw li ñu xam ci li ñu mën a wax ci kaw ci bi ñu xamee ku ñëwoon ci jamono tuddoon Ahmadou Bamba sàll ba niñ ko noppee xam mu tudd Abdullahi wa xadimu rasulihi ci 1927 bind nañ ko ci téere boobu boobu mooy Abdullahi wa xadimu rasulihi am na beneen nag bu mu bokkaloon jamono ñu génnee ndoo leen boobu it euh, dafa am beneen programme boo xam ne li ko tax a jug rek mooy di delloo di delloo ak di tontu wax yoo xam ne dañ koo wax ci yoonu murit te wérut dañuy topp tànk bindkat yi daal li tàmbalee ba yoonu murit sosoo ba léegi dañuy topp tànk bindkat yi képp koo xam ne jëmmi sëñ bi ci boppam la attaqué danañ ko tontu bu fekkee la mu wax du dëgg bu fekkee la mu wax du dëgg ñun moom bañu ñu ko waxal sëriñ bi dara waaye ne dëgg rek la mu ko wax lum nuru nuru lu lum kii waaye bu dee dëgg rek amul jafe-jafe waaye bu fekkee du dëgg danañu wari lay dëgg leeral ko Euh, bu fekkee ci yoon wi la ko wax nag nga xam ne mën naa bañ a attaqué jëmmi sëñ bi en personne waaye léeg-léeg mu attaqué yoon wi ku mel ne bindkat bu siiw boobu Paul Marty léeg-léeg da ngeen gis ci ay bindam du attaqué jëmmi sëñ bi buy wax ci sëñ bi sax da ngay seetlu ne xaw na koo wormaal waaye jëmmi yoon wi lay attaqué loolu it danañ ciy tontu programme boobu it am nañ ko ñu ngi ko tuddee suba subuhaatun wa axta xawlal muridiya ardun wa munaqasha niñ koy bindee mooy dañuy jël problème yi di ko posé suñ noppee indi la wér dañuy wax ne diw wax na lii mi ngi ko wax ci téeréem bi tudd nangam ci page sangam suñ noppee nag apporter lan mooy dëgg ca la mu wax ak la ca dul dëgg téere boobu it am na bu génnoon ñaareelu xaaj bi mooy juzu saani bi ma nga ca moolukaay ba bu fekkee ñëwut ci 18 safar gi nga xam ne dugg nañ ci ñu war a àgg suba bu jàllee duñ ca teg dara mu yegsi Cheikh Ahmad Bamba wax wa Xadim Rasulihi bi tamit bokk na ci projet yi màggal gii nii mooy ñu traduire ko ci français traduction bi it pare na ba léegi tey ñu daal di koy génne moom it ci cadre boobu lay dugg loolu rek ci lay jaare wax ne tasaare mbindum sëñ bi it bokk na ci nag di firi jële ci yeneen jële ci làng yóbbu ci yeneen làkk bokk na ci loolu it ci suñu liggéey lañ ko jàppee ñi ngi koy def téere yi nga xam ne ñun ñoo ko bind waaw en général nag ñun amaguñu téere boo xam ne keneen a ko bind ñun ñu traduire ko loolu defaguñ ko waaye li ñu ëpp lu ñuy def mooy téere boo xam ne ñun ñoo ko bind mu mel ne dafa yam rek ci jàngkati arab yi ñu daal di jëlaat téere bi nag traduire ko ci ci beneen langue am nañ téere yoo xam ne lu mel ne dirasat xawlal muridiya bi am nañ version française am na version anglaise bu mel ne Abdullah bii nga ma doon tudd léegi am na version française bi pare na ñi ko doon def it sa digg nañ ñu def ko anglaise ak ak ak italien ak yu mel noonu yooyu nag mangoog yooyu nag ñun am na ci yoo xam ne ñun ñoo koy defal suñ bopp waaye xam nga daayira day am membre yu limité wu moo tax dañuy am ay partenariat ak yeneen daayira yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk waar ñu ñu dañuy bind di jëlee càmmoñ jëmee ndeyjoor comme ñun ndayjoor la ñuy jëlee jëm càmmoñ ci lu ëpp ndax daayira bi am na ay membres yoo xam ne ci wet googu la ñuy bindee waaye daayira bi ci boppam ci niñ ko xamee dafa màggaalee noonu daal dafa daf ñoo kole ba nga xam ne ñun suñu langue officielle mooy arabe loolu moo wax moo tax lu ñuy bind ci arabe lañ koy bind ba noppi suñ ko cay jëlee yóbbu ko ci beneen doog ko caa jëlee yóbbu ko ci beneen loolu nag xëy na bu ma bu ma bu ma waxee topp lépp li ñuy am ci ay réalisation mu gudd waaye ci at mii daal loolu mooy li nga xam ne bees na ci wala boog dina ci bees bu dee euh, subahaat bi ak diraasaat bi mooy Abdullahi wa Xadim Rasuli jot nañ ci version arabe yi euh, xaaj bi ci war a topp ci subahaat bi dana génn moom it ma nga ca moolukaay ba waaye traduction bële tamit dinañ ko indi incha allah euh, su ko defee ci tënk daal ci at mii ñu nekk loolu mooy li ci génn loo xam ne ñun jàppee nañ ko production ndax bu dee conférence bi ñuy organiser ci màggal gi texte bi ñu ciy bind di ko joxe ak yu mel noonu loolu ñun daanaka jàppewuñ ko jàppewuñ ko production ndax ci daayira bi la bokk waaye bu dee téere boo xam ne dañ koo liggéey ba mu egg ñu génne ko teg ko ci taabali baax si ji loolu loolu moo ci moo ci bees fi mu ne nii waaye nag li génn gun ci téere mat na bari na bari na maanaam mat na ay ay trentaine de livres yoo xam ne ñun ñoo ko bind waaye nag ci ginnaaw bañ diggee par màggal gu jot danañ génne benn téere ak léegi ñi ngi tollagun ci fukkeel fukkeelu téere téere yooyu nag mooy yi nga xam ne moom la ñuy génne rek bu ñëwee ñu boole ko ci addi yi ñu jox gan yi waaye nag ay téere génn naan na fi wax naa leen sànq ne léeg-léeg màggal ñëw ñu génne doo ci ñetti téere ndax ñun projet la ñuy am rek bu ñuy teg suñu plan action ci at mi dañuy wax ne lii lañu ñu yéenee def léegi nag téere bi nga xam ne moom la ñuy génne at mu jot moom boobu moom leer na dañ koy génne léeg ñu ñëw assemblée générale am mbokk yu gis ne nag fi mu ne nii contexte bi laaj na ñu bind ci nangam ñu ne kon nañ ko ci boole buñ gisaatee leneen nit lu jaraan ñu bind ca ñu ne nañ ko ci boole léeg-léeg ñu amaa at moo xam dañuy génne ba ñeenti téere waaye boobaa it dañuy jàpp ne ñun lañu lañu ñu woon def nañ ko ba dolli ca dara waaye li nga xam ne moom lañ fa sud yéenee mooy daal mooy génn benn téere ci at mu jot kon maa ngi siyaare waat bokk yëpp tubarkàlla sëñ imaam jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu mu mel ne kon abdullahi wa xadim rasulihi sallallahu alayhi wa sallam day mel ne moom mooy téere bi nga xamee ne moom la daairatu radrayahin génnee ren waaye nag mu boole ko yeneen i téere yoo xam ne ni lu mel ni ki ay subahaat e, ci xawlal e, muridiya nga xamee ne koy ard boole ko munaqasha loolu di ay téere boo xam ne ni téere boo am solo la xam naa ne rek waa daaira radrayahin moom la ma cay wax rek mooy saman bi ñu di ko ñu di ko gën a ñu di ko gën a kii ñu di ko gën a wàññi rek ba euh, mbokk yi nga xamee ne ñoom ñooy euh, gëstukat yi nga xamee ne dañoo toll ci gëstu te amaguñu koppar ñu mën di ko jënd incha allah. laa ci laa ci kii loolu nag buñ ko buñ ko lënkalee rek ñëpp rek euh, dina gën a dina gën a mën a yomb incha allahu rabbi ñoo ngi santaat bu baax a baax sëñ imaam ci yu am solo yooyu sëñ Amdi Moustapha moom it daaira Muxaddamatul Xidma day mel ne it moom it léegi nekkatut euh, euh, loo xam ne nii lu lu nakere la day mel ne lu ñu xam la te it xamee ko ci taxawaay bu am solo boo xam ne ni mi ngi koy taxawee ci biir euh, jumaay Tuubaa ji ak li ko wër waaye tamit nag am ci yeneen i taxawaay yoo xam ne nii day mel ne tàmbali na caa sóobu bu baax a baax a baax lu mel ne ki wàllum xeeti faxe ba mbirum mariage ñi di ko defee fii mu fexe ba am ko ndax dooñ boñ ci mënee leeral waaye tamit eh, nit ñi ñëw fii di am ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram muy faxe ba di ci taxaw ak xeet yooyu ndax eh, daaira bi mi ngi ci dox jëm ci ak xeet yooyu looñ ci mën a wax incha allah. day mel ne gars yi eh, li jaarat am na solo macha allah jërë ngeen jëf tubarkàlla leer na de yàlla xam na ko daayira bi xam naa ni nga ko waxee am na ay ay fonction yu bari yoo xam da koy def ba ci jiitu mooy ba ko njëkkoon a gën a sosu mooy saytu ak cetal mooy li ñuy wax nettoyage nettoyage bi nag jumaa ju toll nii jumaa ji bâtiment bi ni mu toll nii li mu lëm lim lim lim lëm ci biir mu day mel moo ko ëpp sax day mel moo ko ëpp boo xoolee jumaa ju tol nii nga xam ne daanaka ay milliards et milliards la ci ah, xaalis bañ ko tabaxee woon ca jamonoom eh, ci bañ ko ubbi da ngay xam ne eh, loolu entre entretenir ko daa laaj ab taxawaay daa laaj ñaar ya daa laaj ay moyen daa laaj xam-xam itam ñaari yëpp da ko laaj daa laaj ay moyens yoo xamante ne yu physique la ay nit ñoo xamante ne ñoo koy def laaj ay moyens financiers yoo xamante ne itam moo koy def loolu nag daayira bi ni muy def mooy am na membre yoo xamante ne ñoom ñooy bindu membre bu bindu bu nekk am na lu lay war sa digganteeg daayira bi ngir jumaa ji mel ni war a mel ndax loolu moo nekkoon ñun suñu dël suñu digganteeg Sëñ Saaliw dañ ko waxoon ne ko dañoo bëgg kat jumaa ji ñu fexe ba mu mel ni jàkka war a mel ci lislaam ni jàkka war a mel ci lislaam mooy ci cet ga waaye am role bu muy suyee boo xamante ne jàkka da ko daan suyee naka jekk jàkka yonent bi alayhi salaam moo nekkoon lépp jàkka ji itam noonu la war a mel ndax kii mooy xaadimu rasul kon daa war a mel ne ku dem madinatu munawwara loo fa nemmeeku rek boo ñëwee fii war naa am lu la la nga jël la la nga gis foofu loolu itam moo nekkoon jubluwaay bi kon am na ñoo xamante ne lii seen liggéey yi seen yitte mooy nettoyage mooy setal ak xeeñal lu ne am na sax eh, fi ñu toll ne entité boo xamante ne ab lu mel ne ab daayira la boo xam ne collabore ndax ci évolution bi daayira dem na ba génn Touba am ay cellules yoo xamante ne ci bitti lañ nekk am na ci cellule boo xam ne ñoom liñ liñ ko sas fi ne mooy luy xeeñal lu neex barab bi rek maam ñoom cuuraay ak parfon ak xeeti distributeur yoo xamante ne automatiquement yooyu rek la ñuy gëstu ñoom yooyu rek mooy seen liggéey luñ dajale ci loolu lañ koy lañ koy kii seenu seenu jaayanteeg seenu woote yëpp